ñu gis ni euh, Sénégal amaat na beneen ndam si Coupe d'Afrique bi euh, noo dundee euh, victoire. waaw xanaa mbégte bu rëy di wax ni vraiment instant bi moom nous sommes sous une bonne étoile ndaxte ci 2022 bi ñu gagné CAN en même temps gagné but soccer sur le plan africain ba paré nak pour cerise sur le gâteau ñoo gagné chan bi dembu barki dembu du moins wax deug yalla lolu mbégte bu rëy la diko sante suñu borom aussi wax deug yalla aussi c'est seul le travail paye hein c'est le travail paye surtout que li autorité jël instant bi moy sur les plats des infrastructures defar ay stade même sax da ngay dem lég ci benn koñ sax gis ñu defar foofu ay stade yi nga xam ay terrain yi nga xam ne c'est en gazon synthétique pour permettre l'évolution technique des joueurs c'est une très bonne chose Si nga xam au Sénégal continuer on aura toujours une bonne relève pour jeunes yi avons nga xam ne ngi football bi di évolué, évoluer di gën a mun euh, sport Sénégal en général le football en particulier pour euh, vraiment nous ñi parce que ñun en tant que supporter nous boobu lañ moy di content di gis suñu dëkk mi ngi dem ci sur le plan africain même sur le plan mondial parce que l'union ñu daloon ci mondial bi man dama à accident kase lo quoi parce que entraîneur bu mu dal à une semaine ou 15 jours d'un grand événement nga perte ce jour clé pour nga mën a système de jeu bu nga xamné mom mo moo lay andi a nga taxawat du yomb c'est ku xool jeunes yi booy ni doon football la nga xam avec détermination vraiment pap Thiaw da len insulte jox len vraiment génération 2002 ñoom gàcce ngaalaama quoi parce que bo gissé magni ali Aliou Cissé yor len xalé yi sur le plan local qui euh, yor len pap Thiaw yor len te machallah bo gissé détermination buñ ñu doon footballé ñeu taxaw naari toujours on avait des problèmes pour jouer avec eux mais ñoom gis nga niñ taxawé taxawee football football bàyyiwuñ ben yon pendant 120 minutes téggu teggiwuñ sen tank di football correctement fekk si naari si sen force mo moy lan di simuler di teud di def lu nek jëm leen jey li défi physique té ay xalé yu ndaw ah, ay xalé yu ndaw vraiment content, lool quoi wax dëgg yàlla content, lool machallah dal daal sant yàlla bu baax baax té yàlla na jëm kanam té yeneen ndam yàlla nañ ci top mais nous gis ni tamit bon arrivé président de la république jot len jox 10 millions ak 500 mètres carrés terrain mais moy en même temps nous ñi nga xamni yi nga doon wax tamit jot nañ len jox tamit terrain mais tamit euh, gisoon nañ nous équipe euh, équipe que terrain après tamit terrain scandale moy man xam nga affaire état la état mom mbir xaw sportif waaw ñun ay sportif lañ te sport lañ gëm boo gisee tey ji ma sol maillot bi moom mooy comme tey ji mooy anniversaire coupe d'Afrique bi le la ñu yàlla mayoon xéwal boobu mooy suñu première sacre sur le plan africain léegi tey ji aussi wax dëgg yàlla ñëpp dañ ko waroon feete yàlla def feet bi tombel lii ben booy li ñu leen jox doyul ah man pour man loolu laa jàpp man dama leen jàpp luñ li ñu leen jox doyul parce que fu sport dafa metti balaa nga koy xam nga pratique sport ñun dañ ci jaar sport dafa metti nit ki di yow fajar di dem entraînement di ñibisi ñew avec les problèmes bi nga xamni ne dëkk bi mi nga xam am ci gis ay boy yi nga xamni ils habitent dans la banlieue pour ñew mëna dem ci yenn côté yi dafa entraîner c'est pas tellement évident buñ ñu demee ba andi jaloore bu toll nii vraiment on doit les récompenser ah dañ leen war a récompenser parce que bégal nañ réew mi dañ leen war a bégal ñoom ñi nga xam ne ñoo fi andi mbégte googu te c'est pas gratuit li ñu gagné dafa am xaalis bu ci àndaale xaalis bu ci àndaale les premiers bénéficiaires ñoom la war a nekk ñoom la war a nekk bi mondial bi am na xaalis bu ñu leen jox xaalis boobu kan moo ko fi andi ce sont les jours qui ont amené ça léegi aussi beach soccer la même chose euh, football local bi aussi c'est la même chose aussi kon ñoom terrain c'est-à-dire que nag état war na jël ay responsabilités ba nga xam ne buy joxe mu nekk lu leer daal.

ak xéewal incha allahu rabbi rek ba yenen yenen yenen coupe di ñew mu yalla euh ñu gis ni tamit euh que jot nañ leen daggal ay terrain président de la bi jot leen jox euh, ku nekk 10 euh, millions euh ak 500 mètres euh, carrés tamit lolu lu ci sa position noko gissé wa lolu daf leen di encourager rek jox leen jom parce que aduna lepp lo gis nit bu defee dara lo xamantene da fay tax population bi dañuy kontaan la moindre des choses moy ñu bégal leen. Et moi, je trouve que c'est normal, Defal C'est vraiment normal. Et que mérite ça plus, hein? Parce que quand on a fait des du n'importe quoi pour son pays, vraiment, il le mérite. Et merci beaucoup, Président, de l'Union Defal. Et aussi, de l'Union, Am avons un job fay de nous parce que lii du dara li si li si kanam raw li bët. mais ñu gis ni tamit peut-être euh, si euh, équipe bu mag bi euh, jotoon nañu fi ramener coupe d'Afrique bi tamit mais après ñu jox jot leen jox terrain. mais si biir terrain yooyu terrain yi dafa indiwoon xam nga scandale bu ndaw mooy maanaam am ñi ne ñoom ñoo moom terrain yi fu ñu leen jox noonu ñoom ñoo ko kii mais peut-être si sa point de vue gisoo ni peut-être ñii tamit loolu mun na euh, xale yi lu ñu leen jot a jox si terrain mun na jur genre problème yooyu nii. ah loolu moom liggéeyu état la <laughs> man lu nekk sama liggéey loolu laa mën a expliquer genre ah juste que ñu wax leen ni que état bi lépp lu mu wax nit ñi na ko def rek parce que aussi ñu bañ a tas yaakaar fecc kóllëre parce que tas yaakaar aussi yow loolu baaxul donc la moindre des choses li état mën a def mooy mu respecter ay promesse am parce que ay jeunes lañ ay ndaw lañ tu vois donc def nañ la tout pour emporter coupe bi nga xamante ne moom moom moo nekk loo xamante ne ñun moom la ñu yàgg bëgg loolu la ñu yàgg a yàlla def ko mu ñëw donc na daal état na def li mu war a def rek su ko deful aussi population bi tamit ñu cotiser ñun ñëpp rek daal di leen koy defal parce que vraiment mérité nañ ko ah bien sûr pare ça pour may plus ragaluma lool. Euh, Ibrahima ñi gis ni xalé yi ramené nañu coupe bi fi encore si euh, CHAN bi euh, en tant que citoyen en tant que d'homme Sénégal nous donnons victoire victoires. Ah, vraiment ça a été une fierté ñun sommes kontaan nañ parce que nous la ñëpp bëgg ay équipe yu bari tassé nañ fa ñom ils ont été vraiment sur le terrain ils se sont battus pour que nous indi vraiment ngàcce ngaalaama à eux santé di len gëna a gërëm di len gëna motiver tamit parce que ay gayna yu xam lu len war lañ dem nañ def li len war indi ko fi bégal sénégalais comme niñ ko défé woon. je pense que cette année ça a été une année pour nous vraiment machallah alhamdoulillah euh ñi gis ni euh, que xalé dañ leen jotté primé ku nek 10 millions ak 500 euh, mètres carrés moy ci terrain yi nii tamit euh lolu noko gissé waaw vraiment lolu tamit gis naa ko euh jox nañ leen man man je me dis que luñ ñu leen jox doyul parce que vraiment tok nañ bàyyi fi sen parents yi ku nek dem ak football xam nañ risque nu mu beure ñu dem gëna a bégal sénégalais yi ba tay fo tok média statut ñom ngay gis vraiment man je me disais que nag mënoon na gëna a bëri mais xeyna tamit fofu lañ toll. mun na am tamit amna lu muy andal mais ñu gën leen dimbali mo gëna présent parce que gis nga ni suñu football local gaay dañ ci don casse bu bëri ba yalla def ñom ñu dem wone sen sen kéttam sen kàttan ak lepp lu ñu yobbu ko pour que ñu mëna indi coupe bi wone que ni que on a du talent ici au Sénégal et que football local dañ ko wara développer donc mënon na leen gëna assister par contre voilà man lool la gëna gis xeexee bu ñu mais mënon na leen gëna a dal mo mo, mo gën quoi. mais y a une chose samit mais peut-être si terrain peut-être parce que bii passé si mag yi gisoon jotoon nañ leen jox terrain quoi comprendre nga après terrain xawna na indi ay problème yi sew moy gardiner ne sama terrain la ay yooyu tu vois mais ragalo tamit peut-être li tamit mu arrivé si xale d'autant plus que wa bi soccer tamit en même temps dañ leen ci joxale terrain. surtout ça dañoo bolé ay ñaari nit war leen jox dara ku nekk dem def doole indi man je me dis que buñu né dañ leen di jox dara waruñu war a mun a tas yaakaar ce qui veut dire que bu fekkee amna lu amone nit yi nan sama terrain la ñom war nañ préparer à ce que buñ leen waré joxat mu baña am même problème bu amone bi passé et je pense qu'ils se sont bien préparés cette fois-ci bon on sait que ni que Sénégal instant bi bari na ay détails trop mais je pense que détail bi tamit du ñëw doon lo xam da fay ramené wu ba paré ñu tass sen yaakaar vraiment nañ gérer yenn détails yoy nonu bañ a tas seen yaakaar parce que mérité nañ lolu nonu tamit machallah